nee mi ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp. nee di leen siyaar bu baax a baax. nee di ñaan suñu borom li muy séddale ci bisu sëñ Fallou bii. yàlla nañ ci ëppale ñu fi teew ñëpp. te fekkee ko at yu bëree bëri. nee fii nag ñi fi teew ñëpp nag. nee jikkoy seex Mamadou Lamine baar moo leen fi indi. ndax mbokk yi boobu ba léegi. ne ñi ko fi fekk fi mu toog nga xam ne ñoo xam ne ay rakk lañ ci moom ñeen ñi nga xam ne mag lañ ci moom ñeen ñi nga xam ne ay bàyyi lañ ci moom te jot amul te kenn ku ne sëñ Fallu am nga ci cër boo xam ni mën ngaa toog sa kër màggalee ko fa waaye jikkoom Cheikh Mamadou Lamine Baara ne taxul ak doxalin bu rafet ak woyofam ak xam ni muy jaxasoo kilifaam ak ni muy doxalee kilifaam moo fi indi ñi fi nekk ñëpp nee li muy waxaat nag léegi dafa am loo xam ne mi ngi koy def te ñoom ñii la koy defal nee sëñ jiili mu baax mi toog desee jaar léegi muy jànkatu xasaayid yi ak dongo yi sëñ tubaay ak ñiy expliqué ku man mënti dimbali ku leen mënti dimbali fexe ba ñuy dimbaliku li ngay def kooku li ngay def yaa ngi koy defal njaboot yaa ngi koy defal njaboot Sëñ Tuubaa gépp te moom ci mission boobu rek la nekk nee ñi fi gis nag nee firi na nag waxi sëñ jiili ji nee loolu képp rek la foofu la yemalay waxam nee ñu ngi koy la gudd fan rek te wér ak mucc ak muccale ci barke Sëñ Tuubaa